le président de la république le président Macky Sall son excellence qui a confiance dans le futur ci port de Dakar pour euh, confirmer, ma général le port de Dakar moyen xam xolu économie sénégalaise xam ngeen ne marchandise bu né buy Sénégal port lay jàpp port lay duggee port lay génne port lay demee donc su fekkee ne port dox na économie sénégalaise yëpp mooy dox dégg nga léegi exemple bu directeur général bi joxe donc euh, su fekkee ne président confié na def ñu am confiance ñu jox ñu port dañ ko war a remercier deuxièmement suñu liggéey tey mooy conseil d'administration la woon pour nous wote état financier pour autonome de Dakar pour 2018 exercice 2018 parce que loi bi nee na euh, euh, année bu ne ci période bi direction générale dafay indi état financier compte yep ci conseil d'administration pour conseil d'administration xayma compte yi voté ko pour que après ñu yóbbu assemblée générale loolu lañ doon def ce matin il se trouve que heureusement xayma avec compte yi ak gestion direction générale parce que ce que suñu liggéey moo et leen ren résultat bu port def parce que ñu ngi gis 9 milliards de bénéfices avant impôt ak plus de 6 milliards de bénéfices après impôt ça veut dire que petit bénéfice 9 milliards d'euros, fait nañ l'État, euh, état 3 milliards donc euh, ça veut dire simplement qu'actuellement, pour euh, euh état financier état état financier mu ngi jaar l'outil que ñu directeur direction générale parce que def devons nous liggéey bu bu rafet loolu moo chaque fois nous conseil d'administration que direction générale def liggéey bu baax dans l'intérêt du Sénégal dans l'intérêt du port nous devons koy accompagner actuellement avons arrêté nañ compte yi ba pare fixé nañ date assemblée générale le 13 juin le 13 juin dañuy def assemblée générale maintenant conseil bi day approuver compte yi arrêté da arrêté compte arrêté compte yi approuver ko assemblée générale def daf koy adopté arrêté ko assemblée général bi adopté ko non approuvé ko plutôt waaw parce well.